tey ñëw nañu jël caat noo ko gisee. dama ci kontaan trop si gil ngeen waa ñaari tali waa benn tali waa Grand Dakar waa képp ab Serigne Seex ñëpp képp koo xam ne fii ba HLM si gil ngeen parce que lii rek lañ ci am parce que xale yi vraiment yaa ngi leen di sagal RDV kenn mënu ko fay surtout yow Mouhamed. nekk na xale yi foofu ci écrit bi métti na wala méttiwul. non euh, am na fu mu méttee am na fu mu méttiwul parce que xale boo ko ne defal lii mu def lii métteetul. boo ma fekkee woon sama entrainement da ngay naan kii du Boy Bambara parce que damay nit koo xam ne laa nekkoon ci man laa bugg a sol ci ñoom caat bi ma koy yoree wax dëgg yàlla ak léegi sant naa yàlla bu baax. tey jii boo ko gisul ci salle ba muy dem est-ce que des fois di nga déplacé wu dem salle ba war a wax war a wax ak caat bu ne ma ne ko li ngay daj fii doo ko daj salle parce que salle loolu dafay jox volume jox la doole mais mbër bi fii nga koy amee ci làmb ji ci entraînement parce que technique du doy dama ne mbër mu am benn technique ñaari technique ñetti technique ñeenti technique doyul mbër am na fukki technique ak juróom-ñaar foo ko làmb mu bëri li ñu naan mbërëntaan Mohamed man duma jëm jël mbër mu mag moo xam ne mun na ba pare mbër mi danga koy jàngal mu métti ci moom boo xam ne lii mooy tannaasu mbër lii moo tax mbër métti mais mbër moo xam ne dafa mun ba pare nga ñëw yore ko donc loo koy jàngal doole am na ko mun na bëre doo ko jàngal dara donc amoo fa xaalis rek xaalis xaalis waa ji rek nga bëgg a lekk. jërëjëf. oui merci Mohamed. merci des na foofu mu kii. <coughs> ah. foofu mu taxaw maa la mun waaye. Eh. <laughs> ngoon la caat maa ko yaar muy def baaxul de caat takku ko takk caat li bëre daan na ko daan na ko waaw. daan na ko moo Aline ay Njaak soo fi formé wuloon écrit fi am champion benn yoon baay moo fi formé écrit kere fi écrit ba tax ñu mën a am champion ba waa RDV war fee mën a ñëw def fi xam sa gaañi may leen ma loxo dafa kere écrit ay waay bu ko neexoon muy defe nu ko neex Aliou Camara defe woo noonu